lépp luy xarañteefu sénégalais dañ ko fi fësal donc mu doon loo xam ne doon na baax ñu ñëw yi tamit fësal li nga xam ne mooy destination Sénégal ci wàllu bërëb bi ñu mën a visiter ci wàllu bërëbu noppalukaay yi nekk ci biir Sénégal ñu fësal ko ci euh, bëtu sénégalais yi waaye it fësal ko <clears throat> ci ñi nga xam ne mooy ñiy jóge ci sous-région bi ñëw fii ci Sénégal ci foire bi ñu jox leen occasion ñu visiter Euh, Dakar mais visiter aussi yenn sites touristiques yi nekk autour de Dakar ñu euh, doonoon nag occasion boo xam ne ci ndigalu sunu ministre Mame Mbaye ak si orientation vision président de la République que ñu wax nag tey ci tourisme interne wax ci tourisme interne nag mooy ñu xool naka la ñuy def ba gën a fësal euh, bërëbu noppalukaay yi ak site touristique yi ne ci réew mi ci bëtu sénégalais yi ñu jëloon benn initiative ñaari at ci ginnaaw booba la fi mbas mi di doog a yegsi tudde ko nag taamu Sénégal ñu defoon ko ci ndigalu président de la République mu newoon ñu gannaaw bu mu jàppalee secteur bi dugal ci lu tollu ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards ah juróom-ñaar fukk ak 77 milliards la jël dugal ko ci biir secteur tourisme pour jàppale leen ci biir mbas mi mais mu jox ñu ndigal itam ne nañ fexe ba sénégalais yi di tukki ci biir réew mi loolu taxoon ñu jël initiative buñ tuddee taamu Sénégal taamu Sénégal boobu nag dafa mel ni dox na am na ci wàllu bu mu dox boobu ba nga xam ne hôtel yi ci Sénégal sénégalais yi ñu ngi koy jël di ci dem ñu ngi dem di visiter seen biiri réew sunu ministre nag si ndigalu euh, sunu ministre Mame Mbaye Niang ci ndigalu président de la République jox ñu tegtal ñu gën a euh, jaabal fas wi ci wàllu taamu Sénégal ci yoon woowu gën ci ñaax nit ñi dolliwaat beneen campagne waxtaane ko ak acteurs yi ba nga xam ne lii ñu ne gis nañ ne mi ngi dox ñu fexe ba labali ko mu gën a jëm kanam loolu moo doon solos waxtaan wi tey ñuy gërëm ñi fi teew yëpp di jéem a wane fii tamit ci foire bi lépp li nga xam ne mooy attrait touristique u réew mi ñu fësal ko ci kanamu sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñooy visiter foire bi ñuy remercier l'appui du secteur privé nga xam ne ñoom ñoo mbir mi mbir mi ñoom rek ñoo koy def ñoom ñoo ciy liggéey suñu liggéey ci baaxee ñoom ñoo koy jëriñu ñoom ñoo ñuy tegtal yoon ba ñuy liggéeyee di gërëm yi tamit ñi nga xam ne ñoo ci liggéey yëpp jiitu ci nag ki nga xam ne mooy suñu ministre de tutelle nga xam ne taxawu nañu ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñu def ba mu am xar kanam bi mu am tey ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Euh, ministre du tourisme et des loisirs Mame Mbaye Niang li tax nekku fi du bëri xam ngeen ko dafa nekk ci euh, rencontre bi am Tambacounda le conseil des ministres. suivi d' autres activités looloo tax ma ñëw fii donc di wax ci ci turam di féliciter directeur généralu CICES e pour organisation bu rafet bi mu def ci foiru ren bi trentième édition di remercier directeur généralu ASPT ak yeneen directeurs yi ci niñ organiser suñ stand ba mu visible ba ku fi dugg am loo fi gis di wax aussi sénégalais yi en tout cas pour ñi nga xam ni ñëwaguñ fi ñu profité ci ñëw xool foire bi mais surtout ñu ñëw ci stand ministère du tourisme buñ ñëwee danañ gis ay potentialité yu bëri ay mbir yu bëri yoo xam ni am na ci réew mi mbir yooyu sax dañ koy wax ay euh, potentialité touristique mais man souvent bu may wax dama naan ay énormité touristique parce que yi saa sax dara génn télé wala nga gis dara ci photo nit ñi dañuy defee ni beneen réew la fekk loolu mu ngi seen réew te bu ñu wa bu ñu weesoo ci feebar bi Covid bi tourisme bi Sénégalais yi def ñoom ci seen biir réew moo ñu permettre ñu si fii tey maa ngi wax léegi ci nasaraat ni léegi da ngay jóg pour bëgg a dem hôtel Dakar wala wala Petite Côte boo bëggee am réservation doo ko am ñu ñii nekk ministère du tourisme am na weer ci ginnaaw am na atelier séminaire buñ bëggoon a def ñu demee Dakar dem euh, Petite Côte amuñu fa place Thiès lañ mujj dem pour liggéey foofu loolu rek day wane ni tourisme bi mi ngi relancé wu euh, nit ñi ñi ngi dox seen biir réew may wax nag sénégalais yi ñu pro ci jours yii di ñëw ci weer yi ñëw ci vacances yu ñëw ñu jéem a xam ñëw fu mel ni fii dem feneen pour xam réew mi mën faa dem soqali seen réew li ci des nag mooy le ministère du tourisme à travers toutes ses structures ASPT SAPCO les administrations les directions ñoom disponible nañ pour accompagner nit ñi accompagner les acteurs pour que tourisme gën a jëm ci kanam loolu laa amoon lu may wax maa ngi sant di leen